sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Khadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi sant Cheikh Ibrahima Fall cantug amul fu mu tàmbale te amul fu mu yem gannaaw bi loolu wéyee sëriñ bi ne mu sakku ak njëggal ci njabootuk sëriñ Tuubaa gii mu fi dajeel nii jotaay bi deme ne ay taalibe rekk lam te duñu doon nag lu dul moom te bëggunoo noo doon itam lu dul moom ne ñoom ay sang lan te duñu mukk lu dul ay sang sëriñ bi ne nangu nanu jaam gi ndax dees nu ko jure ne jébbale nu ne ñu fekk fi dindi kon bu nu ñëwee nee na sang toog ci kaw ñu nit ñu toog ci kaw waaye sëriñ bi ne diis nag gann nag ci ñun ne mu ta xool nday joor ne mun ta xool càmmiñ ne bëggut a gis kenn koo xam ni wóor ta def nag nii ci kanamam sëriñ bi ne mi ngi leen di jéggul nee na su loolu wii ne ay kàddoom ci Seex Sidil Muxtaar nag ci la ko jëme ne mu doon lu gàtt waaye lu dëggu nag ci man la lii nga ko cërale Cheikh Sidi Mokhtar sëriñ bi ne rëy na ci moom lool bi mu rëyee ci moom ba nopp wan na ko ak kawe ak yitte loo xam ni nag jox nga ko ko sëriñ bi ne li tax mu kawe ci moom ne ñi nga ko duppe jox leen ay cër kenn ku ne kenn képp moo dox sa digg ak sëriñ Tuuba ne foofu soo ko fa tabbale te muy ab taalibe nee na fu fekkee ne gor as gor la waaye waaye sëriñ bi ne dana rëy ci moom leneen li ci des nee na cër bi nga ko sédde ne ñun ñi sunu maam yi daje woon nag ci sëriñ Touba ñëpp ay nawle rekk lañu ñëpp ñëpp ay nawule rekk lañu kon nag waaye su fekkee ni sëriñ bi yëkkati nga ab cër te muy nuru cërug dara ja nee nga jox ko ko waay waay bu fekkee ni aw nit lañu te nu xam cër bi dañuy xam cër bi mu ci moom liñ ci moom sëriñ bi neen ñu téeg ko waaye Cheikh Sidi Mokhtar sëriñ bi ne téye nañu cër boobu li ñu ci bokk ñépp ñëpp nangu nañu koo bokk ak ñoom li ci des moom mi joxe cër bi waaye sëriñ bi yaa ko moom waaye delloo nan la ko ne mu ngi lay ñaanal ci doole yi Seexil Xadiim barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ne suñu borom def la mag te nga barkeel barke maam Cheikh Ibrahima Fall yéen jànkatu xasaay yi way way sëñ Cheikh Xadiim ne mi ngi bég ci yéen lool di rafetlu nag liggéey bi ay ndaw ngeen. mënoon ngeen a yëngu nag ci leneen ngeen fab seen lépp jëme ko nag ci sëriñ Touba waaye waaye yal na leen sëriñ tubaab fay wax leen amin ne soxna yi yal na yàlla barkeele leen wax leen amin nee na te barkeel seenu njaboot kilifa yi fi ñëw yépp di ay doomi soxna yu bokk nag ci yoon wi ak yu bokk nag ci tariixa yi ñoom itam lii nga xam ni moom la dox ci lislaam nag te tax te dundal islaam nag indi leen fi waay waay yàlla na leen ko yàlla fay ne bi muy ñëw ànd naa ki bokk muy bokki taalibe yi munta lim waaye kon sëriñ bi day juum waaye mbooloo yii ñu àndal te li ci ëpp nag di ay kilifa kilifay diine ak kilifay àddina lépp delloowaat nañu ko ci sëriñ bi te di ko ko xamal waay waaye sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla sunu boroom waaye waaye ñu teewe ko nag déwéni déwén yu bare bare barke sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu إلى الانفصال جزاء باق جاء